teel damay woo nag sama camarade APR yi ñëpp jóg. c'est-à-dire justement ñëpp jóguñu malheureusement. c'est-à-dire les DG et les ministres yi Macky Sall doole loon actuellement on les entend pas on les voit pas. mais dañu war a jóg nag. Ah. parce que nag bu ñu jógul c'est dangereux pour nous. comment comment dangereux cest à tey moom la suba mën naa nekk Moussa Sow. wala mu nekk Jean wala mu nekk Paul. non moo lay ragal yow. mais responsable waxoo wax ju ñaaw aussi. man man saa duñ la fekk rek jàpp la maanaam mënuñ la toppee gestion woon loo xam ne. mais mais ñi fi toog bu dee nii la il faut s'attendre tout. ñi fi toog mooy ñaan Diomaye wala Sonko. kan ngeen seen. la même équipe la cette équipe là. parce que mënuñu comprendre jàpp bi ñu jàpp baa jaxate c'est un otage politique lañ ko mën a jàppee. dañ ko séquestrer bu dee dëgg rek waroon nañ ko mën a bàyyi depuis le premier jour. mais euh, parce deful li tax ñu koy ñu koy tëj. mais nag responsable APR yeeg responsable Benno Bokk Yaakaar yi damay ñaan ñu jóg. Mhm. bu ñu jógee mën nañoo jël à bras le combat mais bu ñu jógul c'est dangereux pour eux et pour nous tous. Mhm. parce que bu ñu paree ci baajaxate ci Moussa lañ jëm wala ci keneen ci ñoom bu ñu mënul jóg nag mënul mënuñu fësal mais nañu joxe moyens yi ñu yor nit ñi. Euh, nit ñi wàcc sur le terrain. même les les responsables ñoom mais c'est ça les responsables de l'APR de quel moyen parlez-vous. li ñu liggéeyal seen bopp ñàkk ko. wala li ñu luubal ci ci régime bi passé. non bu dee bu dee luubal ngay wax luubal justice am na fi nest mm-hmm. rapport yi nit ñi di wax mais la justice n'a qu'à faire son travail. li may wax ragalu leen ay rapport mais ragaluñu ay rapport on libre comme des électrons autour du. yow yow mën nga ko wax Moussa mais est-ce mën nañu wax loolu. mais am na xam ne dama la am na ñoo xamante ne cité nañ leen ci rapport yi. mais justice na def liggéeyam rek. Mhm. on verra fii wànnent di mujjee ki gëtam mais gëm naa ne ñu bari liñ leen di toppee wala li ñuy wax ci ñoom du ñoom defuñu ko man gëm naa ko. man ñoo nekk di yàq seen der dañuy nekk di yàq seen der rek mais ñeneen ñi nga xamante ne. am na lu leen yàlla dénk. Mhm. te ñu nekk ci parti bi. ils n'ont assumer bu ñu mënul wàcc sur le terrain ñu fexe débloquer li ñu yor as tuut ci li ñu yor jox ñu ñu wàcc sur le terrain xeex xeex bi. mais parce que nag il faut il faut être digne. il faut s'opposer dignement. Mm on a on avait eu le pouvoir on l'avait exercé. Mm-hmm. tey ñoo ngi opposition on a qu'à s'opposer dignement. man loolu laa gëm.